mbokk yi loolu mooy ziyaara bi nga xam ne moom nga de war a def ci masjidu nabawi boo génnee rek yaa ngi génnee euh, buntu ba Baqiya boo fa génnee yaa ngi jëm Baqiya Baqiya nag ay programmation ay heure la am na heure yoo xam ne dañ koy tëj mooy cimetière yi nga xam ne euh, fa la ñuy denc nga xam ne fa la Seydina Ousmane nekk ak ñu bëri ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatu rasul yi nga xam ne ñoom la ko suñu borom boole loolu kon mbokk yi euh, loolu mooy li nga xam ne moom ngay am foofu ci Masjidu yi boo génnee ci buntu Baqiya bi moom jëm Baqiya am na yeneen ziyaara yoo xam ne yu classique la yu standard la yoo xam ne dañ koy def am na ñuy dem Masjidu Quba comme ni ma waxee léegi nga xam ne boo fa demee def ñaari ràkka moom xamal ne am nga yoolu koo xam ne dafa umra boo fa jugee xiblatee nii am na ay travaux yoo xam ne ci waxtu yu fa mujj ña fa jugee lañ fa gis mooy ñoo ngi koy defaraate noo xam ne euh, dugg fa du jafe mooy bërëb ba nga xam ne euh, mooy euh, majjitu ñaari xibla yi bariwul nag sax léegi ñi nga xam ne dañ fa dem di def ay ziyaarat ndax bërëb la boo xam ne la fay màndarga rek foofu la suñu borom dogale woon suñu borom def ne ñun xibla gi nga xam ne moom lañu am tey foofu la ko suñu borom soppee bi nga xam ne xibla gu njëkk gi moo ngi nekkoon fa nga xam ne mooy Jérusalem kon nag euh, loolu ci biir ziyaare yi la bokk am na nag yoo xam ne di nga dem Uhud euh, Uhud li fa mat a leeral euh, bërëb la boo xam ne bërëb la ci bërëb yi ndax kenn fàttewul ne xare bu metti moo fa amoon Sidna Hamza fa la tëdd muy bërëb boo xam ne jabar rima moo ngi fa fi nga xam ne fa la yonent yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam waxoon ne ñi nga xam ne ñoom la àndal ci xare bi fii boo leen fi taxawee lu mën a am ci biir xare bi bu leen fa foofu ci bërëbu ziyaar yi la waaye li fa mat a leeral rek foofu ñuy taxaw bokkul ak fi nga xam ne moom lañuy wax Uhud jabal Uhud jabal Uhud liñ ko mën a xiyaase toll na daanaka ci juróom-ñaari kilomètres boo ko xoolee ci sa ndeyjoor boo demee ba Uhud daanaka moom mooy li nga xam ne moo allongé wu noonu euh, jàpp nañ ne lim bi ci maanaam guddwaayam toll na ci juróom-ñaari kilomètre waaye fi nga xam ne nag fa lañ ñëw mu jàkkaarloog fa nga xam ne fa la Seydina foofu nag moom moo la ñuy wax jabar rima foofu nag euh, mbokk yi bu ñu jàpp ne rek dañuy dem rek war foofu li ñu fa war rek mooy dem nuyu ña nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci lislaam nekk suñuy bàyyi ci lislaam tëdd foofu ñu ñaanal leen te seere ne leen fekk si foofu nga xam ne fa lañ tëdd kon loolu moom ci tënk ci Madinatu Munawara balaa ñuy fas yéene nag dem fa nga xam ne nag moom la ñuy wax ne mooy euh, Bir yi Bir Ali di bërëb boo xam ne li wax léegi rek ni ñu ko Cheikhul Khadim indee ci tasawud di ñu wax ne fadaidul aj daydeehum arbaahu kon nag euh, yow mi nga xam ne euh, am nga clairvoyance sa gis-gis leer jàppale rek aj moom bi nga xam ne moom la suñu borom boo farate ñeent la kon nag yàlla dogal na wàcc nga Madina am na yeneen muwaqit ndax ay bërëb la yoo xam ne waroo ko romb ngir sa yéene mën faa tàmbalee ñun nag ñu ci concerné fii di miqaat bi nga xam ne moo nekk ci Madina mooy biir Ali foofu nag na nga fay yéenee mooy rek nga ñëw nekk ci bërëb ba jiital ñaari ràkk def sa yéene bi nga war a def sa yéene dugg waxoon nañu léegi ne euh, foofu la sa lépp di tàmbalee te liy ib aj gi muy talbiya foofu nga koy tàmbalee jël taarixu Ijéré bi ci ñi nga xam ne yàlla dogal na ni ñu organisé woo regroupement yi nga xam ne ñoom ñoom la ñoo aju ci privé bi ak état du Sénégal regroupement yi nga xam ne am na ci biir ñi mu organisé woo ñu jël bus yi nag dugg ci am na ay mursid muy ay guide yoo xam ne ñu waajal la bu ko defee dinañ leen gunge ci yoon wi ci ay zikrullah ak lépp loo xam ne aju na ci li nga xam ne mooy sa taxawaay ba keroog ngay nekk nga yegg makkatal mukarama kon suñu ñaareelu numéro ci maddina lañu ñëwoon. ngir rek indi ci loo xam ne ay euh, jeexital la ci ki nga xam ne moom ñëw na Madina di leen wax ne ñoo ngi leen di joxaat dig daje ci suñu troisième numéro ñu fas yéene dugg nag ci li nga xam ne nag mooy aj gi muy manasikul aj asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu labbayk la sharika lak labbayk